أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله على الناس الحج البيت من من استطاع إليه سبيلا mbokk yi baat yooyu boo leen ko déggee euh, mooy aj moom dugg na waxtu nag bii ñu toll nii euh, Tawfekh Production fas yéene ñëw ak yéen ci seen ci premier numéro bi ci étape de Dakar ndax étape de Dakar day loo xam ne ki nga xam ne yàlla dogal na mën na ko gan mu war a dem ci aj gi lan mooy li nga xam ne moo ko war état du Sénégal dafa am quota boo xam ne moo ngi toll ci douze mille huit cent soixante quota boobu état du Sénégal jëlaat onze mille yi jox ko privé yi jël li nga xam ne mooy tollu ci limu mille huit cent soixante jox ko délégation général mu fas yéene yóbbu ujaaj ji ci ay vol aj étape de Dakar étape bi ci juutu mooy étape bi ñuy wax formalité administrative kon gis ngeen ne euh, ci biir loolu day yell kon nga dem fi nga xam ne moom mooy hangar bi nga xam ne euh, son excellence président Macky Sall bi nga xam ne xool na ne aj munta ñàkk mu am foo xam ne mooy point focal foo xam ne fa la nit ñi di dem di ko fa defee mu jël hangar bi joxe ko ngir aj am foo xam ne duñ le ne daaw fii la nekkoon déwén fee fële fële la jëm kon hangar boobu nga xam ne nag moom moo nekk fële ci aéroport bi nga xam ne mooy aéroport euh, Léopold Sédar Senghor foofu boo fa ñëwee am na lu ñuy wax maanaam guichet unique li ci jiitu bu dee ci privé ngay dem privé bi moom am na lu ñuy tuddee portail national da joxe sa pièce d'identité ak information yi aju ci yow mi nga xam ne yow yaay dem information yi boo ko joxee ki nga xam ne moom moo nekk ci privé bi daf lay dugal ci benn portail national portail boobu bu la ci dugalee di nga am dafay générer benn fiche parce que benn application la boo xam ne boo ci xasee ba dugg muy avancé bu am solo boo xam ne délégation indi nañ ko bu ko defee yow boo xasee ba am fiche bi médecin yi nga xam ne dañ leen agréé ñu nekk ci point focal boobu nga xam ne moo nekk hangar fukki médecin la ni ñu ko organisé am na médecin yu ñëw suba am na médecin yu ñëw ngoon boo ñëwee privé bi moom jox na la fiche bi ñaari fiche lay benn bi visite médicale doon benn bi fiche de renseignement la ak certificat d'aptitude nga xam ne moom la la médecin bi ginnaaw bi mu ñëwee moom système am bu ci duggee bu fekkee ne apte nga ginnaaw yi nga xam ne moom lañ la war a saytu yëpp xool sa glycémie xool sa tension bu dee dafa yell say at xaw a sori ndax boo leen xoolee condition dage bi amoon na ba daaw ñi am lu ëpp 65 ans demuñu waaye condition d'âge boobu dindi nañ ko ba nga xamee ne tey fu mu nekk nii am na ñoo xam ñoo ngi dem te seen âge ëpp na 65 ans ñooñu médecin bi mooy apprécier ndax dañ koy defal bilan ngir maanaam mu mun leen defal visite defal leen aptitude bu ko defee bu ñu demee dina am document sanitaire am solo boo xam ne dina leen mën a accompagner. bu leen fàtte ne Arabie Saoudite mooy pays organisateur loolu mooy li aju ci étape de Dakar bi kon loolu dafay loo xam ne dafay yell am solo ki nga xam ne suñu borom mën na ko gan bu ñuy topp ci Tawfekh Production rawatina ci suñu premier numéro dina xam ne kon moom mii ko suñu borom dogal mu war a mën a dem ci woote boobu li ko war mooy mu fexe ba dem fa nga xam ne moom mooy privé ba ko yóbbu privé bi defal ko fiche boobu bu ko defee bu ko privé bi defalee fiche bi. fiche boobu li ma wax léegi rek mooy li nga xam ne moo ci aju kon day dem directement ci guichet unique bi guichet unique bi nag moom li ko fa war mooy bu demee rek na gisanteeg médecin bi bu paree ci médecin bi moom li muy def mooy dafay dellu siwaat ñëw ci fi fi nga xam ne mooy service d'hygiène parce que am na aptitude bu dee ab aptitude service d'hygiène ñoo koy defal vaccination vaccination yi nag pourquoi moo am solo ndax contrôle sanitaire la ndax maa ngi junj léegi ne Arabie Saoudite mooy pays organisateur vaccination boobu bu la rëccee wala nga ragal ñàkku ba defoo ko am na lu ñuy wax maanaam ACYW 135 référence la ko méningocoque benn vaccin la boo xam ne état du Sénégal yombal na ko ujaaj bi léegi daanaka ñaari junni rek la ciy joxe ci biir inscription yi nga xam ne moom moo aju ci wàllu banque islamique li nga xam ne ci niñ ko organiser loolu la banque islamique di laaj lu jëm ci taxe saoudienne bi jëm ci maanaam zam-zam bi nga xam ne moom nga war a indi ndax avion yi bu ñu demee yóbbu nit ñi bu ñuy ñëwaat pour indi jëlaat ay nit dañuy jël si dañuy indi zam-zam kon loolu lépp nag ci guichet unique boobu boo paree ci sa visite këyit ba nga koy jox moom lay jël boole ko sa beneen këyit sa carte d'identité wala sa passeport bu ko defee moom la yóbbu ci banque bi fayal la lim boobu nga xam ne moo ngi loolu nag bu la ko fayalee mooy def na étape bu njëkk bi tax nga mën a am visa ak yeneen yi nga xam ne day aju ci kiy organiser ndax kiy organiser moo lay wutal fi nga dëkk ndax aj moom ñetti da cee munta ñàkk restauration hébergement ak transport labbayk allahumma labbayk la sharika lak labbayk